tey nag ñu organiser fii eh, foire au livre ku wax foire au livre nga xam ni mooy eh, xale yi nga xamante ni dañu jànge woon yenn livre yi te ñu war jàll yeneen classes yi ñu xam ni en général bu ñu demee ci marché yi ni ñuy jaayee livres yooyu ay ay ay montants yoo xamante ni yu dérisoire la ñun Sénégal autrement ñu permettre leen ñu indi livre yooyu ñu jox leen ay livres yu bees yi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu war a jàngee mais également ñu fexe ba xale bu fi ñëw booy dem yóbbaale ay cahier yóbbaale ay fourniture loolu nag dañ ko def effectivement pour apporter notre pierre à l'édifice ci éducation njàng mi nga xamante ni ñun dañu gëm ni fii ñu toll nii moom lañu ñu war a gën a investir parce que bu ñu bëggee réew mu développé bu ñu bëggee Sénégal ci yeneen anam comme ni ñu koy wootee il faut que suñu ndaw yi nga xamante ni ëllëg ñoom ñoo war a jiite réew mi suñu ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo a jongante ji effectivement parce que avec ci cadre mondialisation bi nga xamante ni moom lañ nekk il faudrait que ñu am ndaw yu jàng yoo xam ne bis bu ñu demee ba war a jiite réew mi bu ñu demee jàkkaarloo ak seen i ay naataangoo yi nekk seen yeneen réew yi ñu am ay proposition yu dëgër yoo xam ne dañ ko mun a def pour loolu nag il faut que ñu investir bu baax a baax a baax ci njàngum xale yi loolu moo tax Sénégal autrement initié phare au livre bi mais également di leen gën a woo di gën a woo parents yi pour que ñu veillé à xale yi di delluwaat ci lecture bi parce que lecture bi non seulement daf lay permettre nga am un bon niveau en français mais également daf lay permettre euh, ci côté scientifique bi aussi ngay mun a comprendre di mën a maîtriser bay tax ngay mun a résoudre les problèmes yi nga xamante ni euh, de façon scientifique dinañ leen ko dinañ leen ko dinañ leen ko jox. ñu ngi ciblé pour le moment ñi euh, jàngu yi ñi nga xamante ni ñu ngi commencé CI ba CM2 parce que gëm-gëm bi nga xamante ni moom la ñu am mooy programme bi dañu war a fexe ba xale yi nga xamante ni ñoom. mën nañ ñi infecté gu leen ñu ngi nekk xale commencé jàng ñu fexe ba ñoom ñu indi leen sensibiliser leen waxtaan ak ñoom aussi jox leen ay livre bëgg loo leen jàng bi mais bëggloo leen surtout lecture bi moo tax ñu investir ci loolu moo tax cette année programme bi ñu yamale ko entre sixième ak euh, ak ak cm mais année yi di ñëw incha allah dinañu fexe ba gën ko élargir mu dem ci collège ak lycée mais di wax encore une fois que l'éducation fi ñu toll nii ku ne xam na ni njàng bi dafa metti dafa cher te njàng bokk na ci li nga xamante ni état bi dafa waroon a góorgóorlu ba ba mu gratuit ba képp ku bëgg a jàng nga mun a jàng gratuitement ne serait ba BFEM wala ne serait ba bac parce que loolu c'est important bu ñu investirul suñu ndaw yi ëllëg li ñu bëgg ci Sénégal duñu ko duñu duñu ko mën a am le mouvement Sénégal autrement nag effectivement programme bi mu lancé dafa nekk ci eh, dafa bokk ci vision bi nga xamante ni moom la ñu amoon parce que deux ans yi passé yëpp investir nañ lu baree baree bari ci domaine santé def nañ fi ay don de sang def nañ fi ay consultation gratuite may ay médicaments également mais euh, cette année dañu delluwaat ci njàng mi nga xamante ni dañu gëm ni pour que ñun ñu euh, jongante ak yeneen réew pour que ñu dab leen effectivement il faut que ñu investir ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a yore réew mi beneen bi nga xamante ni effectivement def nañ ko mooy programme de ñu defaloon à travers les formations yi ñu yi ñu mayoon ñu jigéen yi mais également lu am solo te ñu koy fàtte quelque fois su éducation yi mooy daara yi nga xamante ni Euh, ñun effectivement utoon nañ ay pull dem seddale leen ko te mu nekk pilier bu am solo boo nga xamante ni aussi dañ koy war di dañ koy war di yóbbaale bu ñuy wax ci bu ñuy wax ci njàng bi effectivement tey le 30 septembre ak suba le 1er ñu ngi ci terrain pes bi di xaar bépp parent d'élève boo nga xamante ni eh, doomam génn na ci eh, eh, jàll na ci beneen classe mu ñëw livre ya mu jàngee woon bu ñëwee joxe ko ñu jox ko ay livre yu bees incha allah mais également ñi nga xamante ni dinañ ñëw dinañ fexe ba jox leen ay cahier ak ay fournitures yoo xamante ni dinañ ko mën a yóbbaale mu mu alléger tuuti nag dépenses yi métti yi nga xamante ni parents d'élèves yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dund jërëjëf